waxon na la fi ak 8 jours lima la wax boko def dina tassar lepp da nga yaakar ne damay fo fowuma kafuma yonne ma lima la wax wala ma tassar lepp lan moo tax nga bëgg def li lan moo tax nga bay yaq sama aduna lan nga effacer nekkal ci sama place tey som bi ma laaj fan laa koy jëlee. ok dangaa bëgg a wax ni gisoo vidéo bi ma la envoyé bàyyi di foo ak man jàppal ne bi mooy sa dernière avertissement bi ma lay jox. yow mën naa laa laaj boo jëlee lépp nga tasaare ko lan nga ci am. lii jaaduwul ñun ñëpp ay sénégalais lañ. lii nga ma bëgg a def buñ la ko defoon tey sa famille lan lay yëg. xam nga li ma lay yëgal sama famille bul ko boole ndax ñoom duñu def lu bon ki bon kañ yow moomu la yow dimbali ma yow ku bon nga ku bon nga dangaa yaakaaroon ne ba ngay def sa yu salte yi enregistré wu ma la woon lépp enregistré naa ko lépp laay dugal. mais yow xanaa xamoo ni li nga bëgg a balancer nii boo ko balancé yow yaa ngi si biir da nga siy taq mais dama bëgg nga xam ni quarante millions du quarante mille yow may wax mais ne da nga maa jox huit jours de délai te yow bu ñu la joxoon dix ans sax du tax nga am som boobu. loolu yow yaay xool rek en tout cas may naa la délai fii ba suba ci neuf heures bu ma gisul xaalis bi fàtteel lépp te xam na dinaa ko envoyé. kaay ma wax la dara nag mënuloo ma dara jarul nga may wër. ngir yàlla bul ma def lu mel ni ndax man juguma pour def dara lu bon.